incha allah incha allah jërëjëf jërëjëf Issa Ajaratu Issa ñoo ma fàttali na ci diaspora bi résultat provisoire ñoom loolu nag maanaam yéen jote ndeegun noonu la ko wolof di waxee parce que noonu lañ ko mën a duppee euh, mbooleem bureau de vote yi nga xam ne nekk na ci réewu tugal fu mel ne France fu mel ne itali fu mel ne Espagne fu mel ne Norvège fu mel ne Afrique du Sud fu mel ne sax yenn béréb xëy na daal Guinée defe naa ni Guinée équatoriale wala ginne équatoriale xëy na la ñu wax ne daal fa la Benno Yaakaar gagné ci différence boo xam ne bii xëy na euh, taxu takku la ñu wax waaye ci des yëpp yeew wi ko daal di waabaale maanaam daf ko gagné ci bureau de vote yëpp ci Europe maanaam ci diaspora bi ñu demandi